parce que euh, ku ne xam ne ni tey mooy bés bi nga xamante ne bii ci la ñuy rendre hommage Papa Thione Seck bi mu euh, dëddoog léegi donc tey la def euh, un an ñu ñëw nag fi nga xamante ne bii mooy kër Khady Ndiène ku wax Khady Ndiène wax ne mooy sëru Thione sekk boobu mu bokkal ndey ak baay ay doomam yu mu jur macha allah ku ci mel ni mbay si Ndiaye Benjamin ak Dabala Princesse Ndiaye mi ñu toogal nar a waxtaanee moom ci nijaayam waaye nar a waxtaan moom aussi ci cousin boobu di Waly Ballago Seck daba ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Feeling Dakar. Ah, auzu billaahi mina seytaani rajim maa ngi nuyu monde entier bi yëpp di nuyu monde de la diaspora di commencé ci juróom-ñaari sëñ Fallou Mbacke aw bi sa sama waa ji di ñaan sunu borom mu jubalal ma samay kàddu ba yàlla bu ma feex dara luñ may xeebee ci barke sëñ Fallou maa ngi nuyu ma mbokk internet yi yëpp. macha allah euh, Daba la princesse ku ko wax rek xam ne euh, moom mooy cousine Wally Ballago Seck waaye ku ko xam-xam ne Thione sekk mooy nijaayam alors tey bu fekkee ne dañuy euh, fàttaliku Thione Ballago sekk mu nekk sa nijaay mais aussi yenn saay nit dina nekk sa nijaay te du ngeen xaritoo waaye Thione Ballago sekk sa nijaay la woon sa xarit la woon bëgg nañu nga dikkal ma tuuti ci ay souvenir ak kan mooy Thione Ballago sekk parce que kenn gënuloo ko xam. dama lay tooñ tuuti ba pare soo a commencé na newoon naa la. émission laa jógee 2STV non. nga ne ma foog ma def ko ma ne la léegi. waaw ah est-ce que du fekkee dañuy waxtaan noonu naturellement amul problème mais bu ñu dugg ci cadre coon da ngaa waroon bàyyi ma dem ak yow et tout. ndeysaan ndeysaan nga forcément léegi nag. dañuy mm-hmm. waxtaan ci leneen génn gaamu coon bi wala ñu dem rek. <laughs> non mais euh, ndeysaan euh, il faut il faut il faut il faut ñu dugg ci coon balaa go sek c'est que émission nga jóge te. Mm. bëgguma yàq sa maquillage te xam naa la sa digganteeg sa sa nijaay waaye fër ci fàttali tuuti rek coon dafa doon koo xamante ne bii dafa bëggoon ay mbokkam bëgg ay jarbaatam surtout yéen loolu laa bëgg nga raconter ma ci ay anecdote kan moo nekkoon Thione Seck ci seen biir famille. waaw ku nekkoon Thione sekk sunu biir famille moom wax ko du metti ndax Thione dafa nekkoon guy ci biir famille bi macha allah ndax yàlla sunu borom mi mën lépp sax deful lépp. dafa may ñi tuuti may ñi lu ne gaañ ñi mu ñamal leen. mais moom dafa taxawoon ci famille bi taxawaay boo xam ne bëggul woon musuwaaram la yoroon rek bëggul kenn bëtam xonk bëggul kenn xiif ku feebar mu faj la. yaa ngi dégg di bu weer deewee dépense am yi ravitaillement mi dugg ci famille bi ñëpp wax dëgg ah ba pare ku ku mus a am lu la bett tamit lu urgent problème kaa bu mu mënti doon moom pare na pour taxaw euh, fajal la lool. Mm-hmm. waaw ndeysaan moo tax euh, mu xaw a kii daal ci ñun. Mhm. te tamit xaw a difficile di jënd est-ce que dama bàyyi. <laughs> yombul nga wax ci woon loolu de xam naa ah. loolu. Mm. moo tax dinaa ci ñëwaat waaye dama lay euh, may nga mën a exprimer wu. Mm-hmm. laataa may duggaat sax ci coon ci koo xamante ne bii tam mooy doomi coon ji. ci fàttali Daba la princesse mi yàgg ngeen di dégg Daba la princesse yaayu Benjamin alors. mu nekkoon Italie nag ñu bëri xam nañu sa digganteeg Wally Seck waaye am na ñu ko xamagul ba tey. sa digganteeg Wally Seck parce que dégg naa ni ku ko jàppale nga ci ay début. si tuddul jàppale de parce que defal ma ko dara wax dëgg yàlla defal ma ko dara te mm, Wally sama rakk la mais tamit ñoo bokk yaay sama cousin la parce que papaam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay mais tamit c'est mon cousin. Mm-hmm. Euh, waaye sama xarit la. te it ñoo bokk yaay parce que yaayam lañ ma ndayale hmm? waaw yaayam jaaga moom lañ ma ndayale ma nekk xale daan dem këram di fa mu nekk jigéen ju baax ci kooku laa sawar wax nag ndax dama koo xam hmm. waaw jaaga nekk jigéen ju baax boole maag njabootam jaxase maag njabootam lenn rek la ma ëppalee ci njabootam lenn rek mooy différence am man ak njabootam mooy lim leen ëmb mais bu loolu ci xolam awma différence man ak njabootam muy lu ma leer. waaw parce que euh, du hasard. Wally war a dem Italie. bu mhm. ñu ko boo demee dalal kër Daba Ndiaye. loolu pourtant waxuñu ko sax dalal ci man ndax Wally kii moo ko yóbbu équipe de football. Mhm. moo ko jëlee fii yóbbu ko itali mu nekkoon dëkk bu ñu naan euh, kii nu mu tuddati sax fa ñuy été mu tuddati. fa ñuy été ca Italie fa ñuy ah, ko fàtte. ca Italie waa ca itali du sardeña du sardeña de. xam nga lan moo ma dal nii. léegi. Euh, ak ni nga miine Italie émission bi jàpp na la. ma parce que yaa fi nga commencé émission bi moo baaxal. <laughs> d'accord pour les <laughs> waaw mais garaawul. Mhm. dinaa ci ñëw. léegi Udine. Mhm. la la Waali nekkoon. Udine waaw. léegi Waali ki ne woo ma téléphone ni ma Waali de ñëw na itali mi ngi foofu ma ne ko ah. mu ne ma waaw yéezeloo yéezeloo la ne yéezeloo. yéezeloo yéezeloo. ki ne woo ma ni ma waale mi ngi foofu itali man ne ko fan la ne mu ne mi ngi dëkk bu ñu naan yéezeloo ma woo ko mu ne ma maa ngi nii ci hôtel ak ñi ma àndal ma ne ko ah mu waa ma ne ko waa dinaa fa ñëw mu ne ma déedéet ñëwal léegi. ndeysaan waaw boobu temps maa ngi sëy ma ànd ak euh, ki ma doon sëyal ñu daal di dem fekk ko ci hôtel ba. ñëwee ñu ànd ak moom xaritam yi mu àndaloon ñu ñoom duñ leen fi bàyyi ma koy nuyu de passage bébéto moom tamit doomu Kansu Baali Njaay la xale bu baax bu am kóllëre ba léegi daf may woo di ma seet di def ci man lu ne bébéto léegi ñoom ñu ànd ak man daal di ñëw nag sama kër toog mais hôtel hôtelam la jëloon di fay hôtelam ñu teg ko ci condition yu baax mais li ma dala ko dal damaa bëgg mbokk jóg mu gën maa bëgg mbokk may dem mu topp ma bii moo ko indi woon sama kër. mu jóge ci hôtel bi mu bàyyi hôtel bi bàyyi fi ñu ko teg ak ay benke ñenkeem ak yëpp teg ko fa ñëw ci man ñun noonu lañ mel dañoo bëggante. macha allah. ndeysaan alors euh, nekk bi mu fa nekk parce que gis nañu moom aussi daf koy dafay am reconnaissance di ko wax à tout moment dafay wax ne daba moom a yoroon Italie ba ñu bëri dañu yaakaar ne sax da da da ko hébergé woon. fu ne la koy wax dafa ñëw directement dal donc nekk bi naka la. ci hôtelam la daloon ma dem mu topp ma <laughs> ñëw sama kër man tamit mu ñëw bëggatuma mu ñibbi parce que yaayam man duma wax sax tonton coon parce que kër bu yaatoo jigéen moo ko yaatal. sama nijaay la mook sama yaay ñoo bokk ndeeg waay ma takk ko takk jabaram di dem këram boobu xale la am mais bu ma demaan këram jabaram moo daan mel ci man nooy tax may bëgg a xam nga li ma la mhm. parce que comme li ñuy wax kër jigéen moo ko yaatal mais jabaram moo meloon ci man muy jaaga moo mel ci man noo xamante ni su ma su ma demee damay yàqamti ñëwaat en plus ma dem moom mi nekk sama xarit ñoo daan ànd di foo maa ko mag tuuti mais ñoo daan ànd di foo ñoo daan defandoo lépp waaw. moom mi Dani Guèye moom mi Dani mu Bougane Guèye. waaw ba tey jii sama jumelle sama cousine sama lépp. ku mën ku mën ci man lu ne. kuy def ci man lu ne. Ah, rakk ji faat bintu tamit ni ko dooma ko dàq mu Cheikh Mbeng waaw barki démb rek fii lañ toog ci kër gi mu yëkkati téléphone am woo ma ñuy waxtaan te looloo gën a ndaw ci lu ñuy séq ak man mhm. ay teraanga lu ne lañ may defal xooluñu lu ma am ñoom li ñu séq man rek bokk ko man rek ñoom loolu la ñuy doxal ak man sama sang yooyu mënu ma leen a fay ndeysaan macha allah waali euh, bi mu ñëwee man buggatuma mu dem moom tam bëggatul dem looloo tax mu mujj bàyyi foofu toog ba pare soowul woon ci football bi mën na ko parce que bi mu demee premier entraînement la dugal ay bi yu bari set bi bu ma ku ma ko sax da nga naan damay yokk wala dara. mais wóor na sëñ Tuubaa noonu la ko defi entraînement la dugal set bi. ba tey foofu nga nekkoon ci mm. euh, Wally Ballago Seck mm. di wax sa diggante digganteeg moom di wax aussi tamit noonu mu nekkee woon Italie euh, ak fonk gi mu la fonk ba tey donc loolu aussi dafay firndewu parce que yaa ngi doon wax léegi digg ci digganteem sa cousin yi ni ñu la bëggee aussi sa cousine yi ñoom moom moomi Dani chéri Bougane géey Dani donc yaa ngi doon wax aussi ci ñoom Bintu euh, ak mbokk bu demee noonu ñuy gën di gis macha allah itam Wally Seck cër bi mu la jox mais bu ñu demee ba gis ne moom fi mu nekk nii ak ndaanaan bi mu doon coow yi koy topp ak ni muy bare nan la d'abord vraiment di gisee loolu ak lan lay sentir bu yëgee ne waalee ngi ci yenn bruit yi. man bettu ma ñu ko nit ñi toppee nii. Mhm. bak sëñ Fallou bettu ma dama ko ko daan wax muy reeta gëmmuma woon Alioune Seck danaan ko man Alioune Seck ko princesse Daba moo la njëkk a gëm. barki Serigne Touba loolu man maa ko njëkk a wax fekk boobu duma ma tudd du ma tudd tur. parce que mm. wax naa ko ci benn interview maa man ay yi mu indi. ñun di coow. Mm-hmm. waaw xam nga. Mm-hmm. mais am na nu ko benn ndaanaan defoon sama kanam Italie dama ne ko kii dina dem ba bëgg a waayandoog yow ngay bañ. dañ ma doon reetaan ñii ne dafa dof ñii ñu ma daal ñi ma naan mooy yow kii nit la. barke sëñ Fallou gëmuñu da koo xoqataloon waaw waaw non siisu ko sax mais daf ko dafa yëg ci kaw seenam mu doxee noo xam ne euh, xam nga recevoir ko daal mm-hmm. mais dama ko ni kii dina dem ba bëgg a wayandoog yow ngay bañ gëmuma moom mi ma ko sax dafa siggi xool ma tiit man lii bettu ma te des na yeneen parce que waal yi ndax la ma gis li ko wax eggagul foofu barke sëriñ Fallou man lu ñëw rek ay ree la may def ndax xam naa ni la ci kanam mooy gën a garaaw tegu ma ko fenn nag aw ma xam-xam du ma dara. dëgg la mais dama am lu ma suñ borom wan ci moom. dëgg la te bu dul dara itam nga xam yaayam ni mu baaxee. yaayam di jigéen ju baax jaaga kenn du moom. xam nga nit ñi dañuy tëññi ñeenti weer. Mhm. yaayam ba tey day tëññ. ba tey day kenn gisu ko. kenn waaye waxuma kenn gisu ko de mën nga koo bañ a gis dem këram fekk ko mu defaru jekk jaagar jaagari ki ne doxatul. normal comme ni mu doon doxee xam nga ne day tëb di xam nga dafa bari feeling day tëb day dox di tëb di def ay affaire léegi day yoot nit ñi dañuy tënji ñeenti weer tënji bi jeex moom ba léegi day tënji ba nii may wax ak yow soo demee këram dama xam nga loo koy fekk mu sol ko voile wala xartum wala robu jullikaay yi jël kolom kolu day julli rek di wérd rek waxam sax bariwul mu ngi yor kurusam di wérd mi ngi julli rek. isaan. ma ne ko waa ki ne doo jël wiis sax takk ko ci sa nopp bi man maay wax de te man jaraluma fen ku dul moom sax jaraluma ko. Mhm. parce que nag mënuñu ma lan li ma mën a jox lu ma amul. Mhm. mais nit da ngay wax te yàlla tax li nga gis. Mhm. maa ko xool waaye maa ko waa ki doo takk sa wiis sa nopp bi. mënuma démb fii nga toog la moomi toog loo loolu la ma wax mën a ko lu tënj ñeenti weer la yow nga tënj léegi tonton am un ki ne ba tey day teñj ba léegi musumaa gis jigéen ju sellee nii maanoo ni baaxee ko nii diiñee ko amee ko kóllëre ndax nag sama nijaay ji mënoon naa dee mu def ñetti fan ki ne fàtte ko. wallaay. dégg nga ma mais ba tey da koy dund. ba coon sekk génne àdduna ba léegi nii laa lay wax ba tey ji may wax ak yow amul dimanche bu ki di jël la chaque dimanche kaamil. Hmm? chaque dimanche ki ne kaamil. chaque dimanche da koy kaamil. chaque dimanche ba nii nii ñu naan anniversaire bi suba la xaw ma ginaa suba chaque dimanche kaamil man dama waaru. ah parce kenn gisatu ko ah nëpp nit ñi daan. kenn du ko gis kañ lay génnaat ah, donc. kañ lañ koy gisaati ah, soirée waali wala kañ. mais depuis boobu ba léegi c'est vrai que moom moom léegi dëj bi daf koy daf koy dund. dafay du ngeen ko gis du ngeen ko gis parce que. nit tam man mosumaa gis ku mel noonu yàlla nag noonu la ko bindee sell la ko yàlla bindee ak maandoo noonu la ko yàlla bindee mais fi mu ne nii nii nii nii nag da cee raw nekk nit koo xam ne hmm? mhm. kenn mësuta gis leen parce que nit ki da ngay sa jëkkër mun na génne àdduna nga tënj ko ñeenti weer ak fukki fan la xaw ma mu jeex nga nekk ci sa bopp mais ba léegi ki ne day tënj chaque dimanche mu wàcceel jëkkëram kaamil amul dimanche bu mu tëbal ba coon sek génne àdduna ak léegi ba ñu naan anniversaire bi xaw ma trois jours ci des xaw ma quatre jours mhm. ba nii may wax ak yow macha allah yàlla may ko njaboot gu am fulla njaboot gu sell ay xale lañu mais ay xale yu diñ xale yu am fulla xale yu am personnalité xale yu xam seen diine mhm. ndax nag kenn ku ci nekk ba ci waali mii ñuy wax waali da ngeen ko war a moytu àdduna na xamuñu ko ndax xale la boo xam ne dañ ko yóbbu daara mu tarbiyu te baayam amoon na tous les moyens ndaayam amoon na tous les moyens mënoon na nekk enfant gate gâté nañ ko gaa mais yar nañ ko éduqué nañ ko ndax bi mu nekkee xale bu ndaw lañ ko jël yóbbu ko daara mu dem jàngi ji daara. waaw dafa dem daara waale. dafa dem daara ba wàcce kaamil lu mu bëgg a tari ci arxuraan da koy tari lu mu bëgg a bind waale bu bindee buñ la ko waree nga ne waale bindul lii parce que. dafa tarbiyu daara nit nag nit ñi dañuy gis sa physique nii rek yaa ngi dégg di ci commentaire te du ñu xam yow la kan. wala Sénégalais yi xamuñu. xa Sénégalais yi xamuñu loolu waala dafa dem daara waali Fass Touré la dem lañ ko yóbbu xale bu ndaw mu nekk fa ba nekk grand ñu soog koo indi ñu bari nag xamuñu loolu. Fass Touré. waaw fa lañ ko yóbbu daara mu ngi mel ni tey ci man te li tax mu ñëw sam papa moo ko jëli. sam papa moo ko dem jëli ci indi ko. ñu bari nag dañ koo gis nii muy dangal di def meew ak di def lii ñu naan ko lii ak laa lu bon loolu nañu wax ko ko. Mm. mais xale bu baax a ngi noonu. yaa ngi may wax léegi yaa ko yoroon yoruma ko woon dafa ñëwoon ci man parce que dafa waroon ñëw ci man. Mm-hmm. ndax dama daan dem ci yaayam daan fa yi nekk ci yaayam te yaayam musumaa def lu bon lu may fàttaliku musumaa wax lu ñaaw lu may fàttaliku. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax ma daan dem ci yaayam. kon su doomam ñëwee ci man. lu maa war a def lu raw li ndeyam daan def ci man. mais bu démb doon tey damay lal tapis pour Wally bu démb doon tey dama koy sang bu démb doon tey dama koy boot ndax xam nga lu tax. Mhm. yaa ngi may laaj léegi ak succès fi mu toll nii ak nii man mhm. gisuma see Wally gisuma ko parce que bu ko àdduna gépp gàddu koor ci àdduna gépp buñ ko daroon bu ma gisee moom mooy taxaw loolu cër la bu ko neexoon mu fàtte lépp. su ma ko rombee gàddu koor yi dar ko sax mu xaw a fineti xool beneen côté bu bokk la côté bi may jaar mhm. te su boobaat dina ma naqari nag mhm. parce que man damaa xam fi ma ko fi mu toll ci man maanaam li fi ma teg waal yi ni ma mel ci moom moom rek laa mën a déglu am lu ma naqari déglu ko giif moom donc mhm. laa mën a déglu musique am mel ni dara naqariw su ma amee lu ma metti su ma ko dégloo day mel ni dara naqariwu ma. Mhm. Mhm. c'est vrai que euh, bëri na ñu mel noonu ñoo xamante ne bi ay ndaanaan lañu mais bu ñu siiwee rek dootuñu yëgati seen mbokk yi yow sa digganteeg waale tey jii nga xamante ne bi euh, yàlla may na ko succès lan la. exactement comme ni nga ko waxee donc euh, mu ngi lay nemmeeku donc tey jii la la gën a faale tey jii la la gën a yëg. waaw tey la ma gën a faale tey la ma gën a yëg gisuma succès man ba tey ba ma ko gisee même waale bi laay gis parce que moom moo may wan lool. du wala déggoo sama wax man am naa fulla de bu ma maanaam lu ñu mën a bokk ci àdduna boo man naree humilier sama dignité man dama koy garder pour man kenn mënuma sous-estimer ci àdduna duma ko nangu parce que li may doon doon jigéen sonalu ma leen ci dara ndax maa ngi def nii lavorare li italien di wax sa lavorando yaa ngi comprendre mhm. kon yàlla suñu borom macha allah mi ngi may dimbali macha allah bàyyiwu ma mhm. ñoom nag dañuy def seen devoir ci man def li leen war ci man mais euh, nekkuma jigéen boo xam ne dama leen di sonal sonaluma leen kon képp koo xam ne rek def nga li la war ci man day gën a neexal sunu ànd mais soo ko deful it duma la ci mere ci lenn ndax man li may natt bi ma yàlla di teg ci ñoom teg na ma ko ci ñoom ba pare mooy hmm. bëgg gi ma leen bëgg bëgg naa leen ba pare yenn saa yi sa xol naqari kon boo gisee yenn yi ñu teg ko ko euh, bi ci mujj rek bokk na ci bi mu demee ci stade bi ba pare joué wul donc loolu itam nan nga ko dundee princesse. nu ma ko dundee metti na ma mais xam nga lu tax mettiwu ma. Hmm. ma penn sekk sama tonton moo ne ku yàlla di xeexal doo xuloo xanaa xamoon ni dëjë na ma des fois ngay def nit ki dara bugg koo yàqal fekk am na loo koy defaral. Hmm. parce que ñoom loolu ñu ko def. neexul ñun ñëpp la metti parce que jour boobu fii laa yenn si ci kër gi ñoom añewuñ fi avant ñuy pare añ fii lañ bàyyi añ bi dem mhm. une heure ñoom ñëpp génn nañ kër gi dem muy Benjamin ak Mbaye si ñoom ñëpp ak Lil Pro une nañ kër gi dem añewuñ fi kon ñoom seen intas te fan yooyu yëpp semaine bi njëkk bi yëpp du ñu nelaw guddi ñu ngi ci studio bi ñu ngi liggéey ñu ngi def li nga xam ne war nañ ko def di préparer mais bi yàlla dogalee jour ba jot ñu àndandoo dem seen yéene moo doon ñu ñu joué. Mhm. mais bu fekkee loolu dafa am neexul ñun ñëpp la naqari. ñun ñëpp la metti neexu ñu de mais nag yàlla des fois mu dogal dara ci nit ki nga tëj bunt boobu mu tijji bu ko gën a grand ndax après gis nga defe naa ni ni président Macky Sall def ak moom. waaw loolu neex na. Mhm. waaw waale dafa nekk baax yaay la yaayam dafa baax. yaayam tuxul cigarette naanul taxawaaluwul ñàkkul fayda waale jigéen ju diña ko jur ju mat nday ju mat nday laam nday juy dimbali kuy def lu baax ci àdduna bi day dem ci hôpital yi di fa joxe ay ay ay xaalisam boo xam ne ku feebar boo demal léegi principal nga ne jaaga moo fi yabal wala nga dem daan teg dañ lay faj jox la say garab ah ñu ngi def yooyu waaw waaw da koy def. yaa ngi dégg waa jaaga day dugg ci morgue yi. jaaga day sax sang néew ndax yërmandeem li man du ma ko waxal lu ma xamul. li ma sekk moom rek laay wax. te koo xam. waaw parce que mm-hmm. daf maa yar. bari na yu bari yu mu def ci man. donte nag yàlla may na ma ndey ju baax ju diiñ mhm. ju am fulla ak fayda ju am personnalité ma koy ñaanal mu yàgg fi lool lool lool lool lool bañ di ko weere ka weer yi mariage na si biir man sama wax yëpp lool la sama yaay yàlla na fi yàgg te ak bépp yaay képp ku mu ko yéene macha allah sa yaay jooju bokk ak con balaago sekk ndey ak baay mm. kon con di sa nijaay lenxe mm. d'abord Euh, tey jii mooy nekk nag omage yu Thione Ballago Seck un an la def bi muy dëddu àdduna yow fekku la fi Italie la la fekk. Mm. bi ñu la ko annoncé déjà. Mm. Euh, ak nan lañ la ko annoncé. xam nga da bëgg indi problème fi non mais daba euh, xam nga nag xam nga nag. ñëwoon naa duñu wax ci coon nga ni waaw. waaw ah, d'accord mën nañoo bañ a wax ci Thione mais dama bëgg rek nga nettali ma bi ñuy lay annoncé dese Thione sekk ci yan moment la la fekk. waaw dama dimanche la. boobu maa ngi Italie te boobu tout récemment avant may dem damaa demoon ci moom këram jour boobu sax damaa ñëw fekk ma fa jaaga moom laa fekk ma yëg ci studio bi nuyu ko ñu taxaw a waxtaan parce que boobu dafa amoon lu ñu waroon wax lu am solo ñu waxtaan man ak moom mu wax ma lim may wax ma dem. yàlla dogal ma dem Italie man nag li ma choqué ci moom mooy yëguma feebar dégguma feebar. xam nga. Mm-hmm. dama yeewu rek euh, sama benn xarit. Mm-hmm. laa dem këram. léegi am ku ñëw ni ma am ku ñëw ni ma. Mm-hmm. ndax am euh, yëg nga nouvelle bi téléphone. man na ko nouvelle man mënu ma yëgoon nouvelle bi man ne ko nouvelle laan mu daan ni ma kon duggal internet. te ñemewu la ko wax. waaw. léegi ma ma may jël sama téléphone pour dugg internet xamatuma fa may aw pour dugg ci internet bi parce que man rey naa ku ne man ci diggante bi parce que imaginer wu ko man léegi ma bi may def noonu di trembler yore affaire bi di lox nii am keneen ku ma woo sama jëkkëru sœur ni ma nouvelle bi moom doy na waar ma ne ko ay waay bu leen ma rey lan la lan moo xew mënuma wowal sa yaay man diggante boobu man dee naa man ma woo sama yaay muy sonn rek jolu ndekete moom mi ngi toj kër gi. après ma woo mbay si mbay si moomu ko wax muy lu diis. ndeysaan lu metti je me boobu maa ngi dugg sa statut d'abord ngay jooy rek waaw di wax rek fanaan wax guddi gi yëpp ndeysaan boo bu ñu liiree sa statut rek yaa ngi woon itali mënoo ñëw mais mu nekk lu diis ci yow c'est vrai que euh, fàttaliku bi dina metti parce que xam naa itam mais da ngay dëgër metti na da ngay dëgër tuuti ñu eggal émission bi nga wax ma kan moo doonoon balaa Ballago sekk ci yow di yomb nag waaye il faut nga dëgër tuuti parce que xam naa ni nga mel ci seen nijaay jooju parce que dafa am lu mu bëri lu mu def ci famille bi te ci loolu dafa am importance bëgg naa loolu nga euh, duggal ma ci vraiment euh, papi lijjantil ma mouchoir à jeter ndax sa yaay day jooy rek lijjantil ma benn mouchoir à jeter foofu demal si boutique bi nga jëndal ma mouchoir à jeter nga xoolal ma fii ah ko defee émission bi bañ a bañ a bañ a bañ a bañ yàqu si demal lijjantil ma loolu papi voilà ah benn gi nii c'est bon c'est bon merci jëf jërëjëf Thione euh, sekk dafa am lu mu doon ci yéen dafa am lu mu def ci famille bi lu am importance ku ne xam ne ni mook sa yaay ñu bokk ndey ak baay mais ginnaaw loolu itam ci biir li ñu woowee seen famille Faramareen daf ci am benn taxawaay bu am solo parce que itam yaakaar naa ne famille bu ci nekk am na ku ci mel noonu d'abord. waaw comme li ma la wax ñun lu tax ñu gën koo jàpp mooy sama yaay te dafa féete sama yaay fu nekk defal sama yaay lu nekk fi ñuy gën a nekk xale duma ko fàtte. mus naa jàppante sax ak sam ci bëgg sama yaay ni ko dama lay utal place nga liggéey sam papa bañ ni ko boo amee loo koy defal defal ko ko mais sama jabar bàyyil ma ko fii sama jabar la. parce que sama yaay daan ànd ak moom di waye ak yëpp mais sam moo xëy xëy tere sama yaay après sama yaay toog dematul mais ensemble bi yëpp mook sama yaay ñoo daan ànd fu ñu mës a dem fu mu mës a tukki moo sama yaay daan ànd buy way sama yaay di aw. waaw ah, mais après bi sama papa ñëwee nag xaw a kii ak yooyu commencé di tere sama yaay moo tax àndatuñu waay mais danaan or ak luñ ko mës a may or lu mu mën a doon sama yaay la koy ñëw jox ndax ñoom ñaar dañoo am complicité bu garaaw. daf ko bëggoon daf ko bëggoon. luñ ko mës a may sama yaay la koy may loolu moom duñ ko xalewaale ah. loolu moom duñ ko xalewaale daal. Mm-hmm. te it dem nañ ba nekk ay mag gis ko muy ñëw ci kër gi di seet si sama yaay di am di ko dimbali daal bëgguloon sama yaay dara lu ko naqari wax dëgg naa bi muy gaañu sax su gëju fi woon. gëju fi woon pour ñu ñëwoon ñëw ñëwoon seet si sa yaay. non moog sama yaay xarit lañ moom moog sama yaay moo tax sama yaay day jooy rek ba léegi nii day jooy rek nangul sax ku teg way coon ci kër gi. estati bu rëy des fois day jékki-jékki nit envoyé ko dara lu am coon danaan ma waxal ci ñii ñu bàyyi ma ah ñu jógee rek di ma envoyé coon sekk mën ko yaay ñoom xamuñu li carrément li ngay yëg jàpp nañ ni sa mag la rek bu ñu amee dara dañ na koy jox ñoom noon rek lañ koy jàppee. parce que dafa bette aussi. ñëpp la bett loolu moo tax mu metti dafa bette c'est vrai que nit ñi euh, xalaatuñ ko woon ñu naan kullu nafsin saa yu xatin mais xalaatuñ woon ne Thione Seck parce que euh, jamono bi mu dëddoo dafa bett ñëpp. feebar bi yàggul keroog rek maa ngi koy laaj mbay si ndeysaan mu ma ci euh, mu ma ciy wax lu mel noonu itam feebar bi yàggul dara dara dara dara et puis monument bu mel noonu ci famille d'abord bu ngeen xëyee ñàkk ko lan la def ci famille bi. wéet bu metti wéet bu metti la def. wéet bu metti la def vidde bu metti la fi bàyyi man dama ni sax est que doomam yi duñu dof man dama ni est yi duñu dof man dama ni sama yaay est du dof tonton ma perne mi ngi ba France mm-hmm. mi ngi ba France mais mm-hmm. ba léegi nii jooy rek ma nii day jooy rek day jooy rek moo wax ak moom téléphone doo wax ak moom téléphone bu coupé te jooyul te nit ku baax a ngi noonu tonton ma pend di jëna ma nit ku baax a ngi noonu mag bu yaru tonton ma pend hmm. mag mu yaroo ngi noonu mu baax mu yiwén mu sedd mu bëgg sama yaay respecté ko yaay lay yaay lay woowee sama yaay yaa rek lay wax daraan ma sama jarbaat nga mees ñoo sama rakk nga ñoo bokk yaay gént sax bu ko defee bu yeewoo sama yaay lay woo. ma penda Seck. barke yonent yàlla sama yaay lay woo saraxeel ma sama yaay lay woo damaa gént lii yaa booy yi lay wax aloo yaa booy yaa noonu la jàpp ak sama yaay. mag bu baax mag mu yaru. danga nga jege da jege doomu coon yi ñoom Fat Bintu moomi Aïcha lan lan leen di def ñoom tamit la fait que gisatuñ seen papa. ñooñu def nañ. ñooñu def nañ parce que dañoo am ku ci nekk du ñu àndandoo di dem seen pap mais dañu ku ci ne da am sa jour booy dem. boo gisee xabaru tonton bi niñ ko def suuf si dañ ko ci biir suuf si dañ koo layal layal lay ba mu nooy ba rafet mu teg fa genre bangu kaamil yooyu teg fa seeni kaamil te macha allah seen bàyyi da leen a yar xale yi ku ci dugg kaamil bi ngay yëkkati jàng jàng jàng doog a génn. parce que ci alxuraan la leen yar. ci diine moom moom xaw ma lan mais du lay ak njabootam muy moomi man ba ma daan dem këram dafa daat dañ daan am jour yoo xam ne ustaas bi daan ñëw ci kër gi di jàngal. te ñoom sax loolu la ñu jàpp ba nii noonu la ñuy defal seeni doom waali boo demee këram am na ay jour yoo xam ne ustaas bi day ñëw di jàngal ay doomam bintu boo demee këram noonu. Euh, moom yi boo demee këram noonu Mouhamed Seck noonu ñoom ñëpp. gis nañ ko ci benn interview benn vidéo bu ñu génnee récemment mu ne am naa doom tudde ko Seydina Mohamed tudde Ababacar tudde Seydina Alioune euh, vraiment mu nekkoon nitu diine koo xamante ne bi ñëppam xamoon ñëpp xamoon nañ bëggam ci Seydina Mohamed yow si am nga loolu sallallahu alayhi wa sallam kii bi mu juddoo bi mu juddoo kii da ko doon wax euh, sama sama ñoom yaay dañ ko doon tooñ naan est-ce que doom du ko tuddee yàlla Babacar ndax tellement moom saaba yi rek lay tuddee Seydina Mohamed lay tuddee ak saaba yi bi mu juddoo dañ doon reetaan fii moom euh, kii ku muy tuddee doomam ji ñu naan ah est-ce que du ko tuddee yàlla. donc Aline yooyu noonu ak Mouhamed yooyu noonu yëpp ay tuddewul mbokkam mi. déedéet saaba yi lay tuddee carrément. Mouhamed Seydina Mouhamed direct la ko tuddee. direct la ko tuddee Alioune Seydina Alioune jàmbaari góor ñi borom jaasi ji direct moom la ko tuddee Ababacar noonu Babacar moom la ko tuddee Ababacar mu sell ma moom la ko tuddee Aïcha mu tudde ko soxna Aïcha mu Seydina Muhammad Bintu mu tudde ko Fatimatu Bintu yaa Rasulullah alayhi salaatu wasalaam moom noonu la tuddee de moom ñooñu la tuddee tuddeewul xarit tuddeewul dara lu mu am sunu borom moo ko ñoroon ak saabaam yi moom noonu la doon dundee wax dëgg yàlla ki ne da ko daan wax yàlla na ma yàlla dimbali ba nga bàyyi penc mi ci jàmm benn jour ñu toog mu ni ma lu may ñaan yàlla toujours mooy yàlla na ma yàlla dimbali ba coon sekk bàyyi penc mi ci jàmm moo tax bi penc mi amee problème ma ne ko kinne sa ñaan bi nga doon ñaan munuma lépp dina sedd mais damaa bëgg mu génn ci penc bi ndax coon nekkatul xale mag la nee la jigéen ju baax a ngi noonu. yàlla déglu ko ba nga xam ne coon est-ce que deful deux ans demul penc bi. toog na deux ans moom. ëpp ko demul penc bi. penc bi nee naa la kooku référence la kenn. man de loolu la ma wan. ak dëgg yàlla. loolu la wan àdduna yëpp. loolu la ma wan de. loolu laa xam ci moom. moo tax waale ku koy jéemal dangay ngay sonn. ndax boo amee ndey ju baax. Mhm. faqatal la du yomb. Mhm. xoqatal la du yomb. te it yóbbu nañ ko daara mu tarbiyu ba xolam toj. kon defe naa ni lu muy ragal amu fi na barki dem bi ñu ko tooñee gis nga ko waxuma la àdduna bi génn de mais bàjjana bi dañoo takku ba dëgër toog def seen interview yaa ngi dégg wax seeni wax ñépp génn man fekkuma fi maa ngi Italie waaye dama koo dund comme ñoom comprendre nga. Mhm. moo tax nag ñu war a xam ne Wally am na ay mbokk yàlla nag moo ko bindee patt point com bii muy def soo amee lu ko naqari sax doo ko dégg doo ko gis day toog ni patt du wax. ah noonu lañ ko yaree xale bu nu yar la. dama fi may tëjeeg yow mooy euh, Thione Ballago Seck moomu ku nekk xamoon xam na ni sa nijaay la mais en même temps itam sa xaritu papa la woon. waaw loolu moom am na moom yow nag problème rek nga bëgg a indi. loolu moom am na moom mook sam papa moom ku ne xamoon na niñ meloon way na ko fu nekk way na ko fu nekk way na ko ci xalam way na ko ci musique moderne way na ko fu nekk. Massamba Ndiaye Massamba Ndiaye góoru Jooba Ndiaye. way na ko fu nekk ñu nekkoon ay complice ñoom ñaar nekk ay xarit. seq lu baax lu ñu seq ko. ci lu jiitu man may juddoo ba bi ma juddoo yam ci di ko dund ak ñoom waaw. mu koy way du solo bàyyi ma du lekk bàyyi ma yor na sama rakk ji waaw sam papa nag nekkoon moom it bàyyi bu baax dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana firdawsi moo tax bi moom moo jëng reprendre way bi oh. yëngalaat xol yëpp waaw mu nekkoon ku baax ku ngeen ku ngeen ku ngeen ku ngeen bëggoon buggul ñu xiif bëggul ñu mar buggul ñu rafle bëggul ñu manqué dara moo ñu jàngal ñemewaañ moo ñu jàngal toj suñu xol ci togg moo ñu jàngal toj suñu xol ci yaatal nit ndax dafa amoon néeg boo xam ne néegu gan la tuddoon waaw man maa daan togg ak sama grande sœur dañoo amoon boolu gan boo ñëwee ba huit heures da ngay añ sunu kër ku fa dugg doo génn ko loolu la ñu jàngal yaatal yaatu joxeñam ñam loolu la jàngal te loolu yëpp moom moo ko moo ko moo def parce que dañ daan xëy au lieu que mu jox ñu sunu dépense ñun amuñu woon dépense bu fixe xam nga dangay xëy kër yu bari dañ lay jox sa dépense nga dem moom dalay xëy jiital la sol tenue bi yóbbu la ba marché boo nee yàpp laa bëgg a togg seeraas lay dem ak yow duggal la li nga soxla yëpp boo nee jën ngay togg mu dem marché poisson duggal la li nga soxla yëpp ak tenu bi sama rakk bi mës nay xeex ak benn moroomam mu na ko sa papa day dugg kooku di xeex mu nekk baay bu baax. moog coon dañoo nuroo woon ay jikko. ci fulla moo tax ñu mënoon ak fayda ak dimbali doomu aadama. su masaan dem ci kaso yi wala dara wala bunt pikin bii nga xam ne pekin gi ñëpp ko xam su fa duggee danaan ni kaso bi yendu ni laay laa waaye commissaire kii sama jar ba àll te du ko xam de permas permas dañ koo dem ba. kuñ fa jàpp dañ naan la boo gisee borom police bu sol tenue am yaram rek neel permas dina la génne ak loo mën a def boo nee permas rek mu gëstu ni la kii sama jarbaat la lu mu def nga ne nangam nangam mu ne bàyyi ko mu ñëw dinaa ko la génne la waaw. police bu am yërmande. bu am yërmande bu bëgg njaboot bu ñu taxaw bu ñu yiir waaw nee naa ko li mu def ci ñun yàlla na ko yàlla fay fam ne. yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. amiin kenn du xàmmee doom bu mu jur doom bu mu jur bu gan yi baree sax daf ñuy xool ci bët ñu jóg may gan yi ñu añ bu ñu paree mu jox ñu ñu jëndi añ. moo tax loolu lañ tàmm. <laughs> gis naa ni fi mu nekk nii sa sa tooy na c'est vrai que li ngay wax c'est dafa dafa bëri émotion donc euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sax jéggalu daba foofu ñu dugg ak yow parce que itam yaakaar naa ne. dafay bëri lool émotion boo waxee ci euh, Thione Ballago sekk ba pare itam wax ci sa papa c'est bi moo koy laaj souvent parce que nag ku ne xam ne ni ñoom ñaar ay euh, xarit lañu woon te ndeysaan mënoo wax coon Ballago Seck sax te waxoo Mass Ndiaye c'est vrai que sista ñu ngi ñu ngi ñu ngi lay jéggalu di wax ne euh, massa ci foofu ma dugg xanaa di ñaan suñu borom yërëm leen xare leen àjjana ah, eh, waaw wax dëgg yàlla ndax nag eh, ay xarit lañu woon te tey jii ñoom ñaar ñëpp nekkandoo ba zàq te li ñuy wax ku kullu nafsin saa yu xatin mawti c'est vrai que mu ngi noon ñu ngi ci famille bi nga xam. nag euh, Thione Ballago Seck la et puis bi moo ko waral donc kooku moo nekkoon Daba la princesse Ndiaye ah, Daba xanaa nga dëgër rek ñu tàggatoog yow dëgg yàlla balaa ñuy voilà accédé waat di di di wax ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéggalu nag ah ñu jéggalu parce que foofu ñu dugg moo moo sensible trop trop franchement ngi jéggalu di ñaan suñu borom encore une fois noonu lañ koy ñaanewaat rek di ñaan yàlla suñu borom yërëm leen xare leen àjjana àjjana yi gën a kawe et puis njaboot gi ñu fi bàyyi suñu dëgëral leen bu baax baax a baax macha allah. sister ah nga nga nga tàggatoo dëgër rek d'abord. bi jeex na maa merci. jërëjëf Alioune merci beaucoup jërëjëf di di ko di ko gërëm kooku moo nekkoon Daba la princesse Ndiaye moom tam di kenn wax dëgg yàlla ci jarbaatu coon balaagu sekk yi ah ñu ngi koy gërëm di gërëm nag ki nga xamante ni wax dëgg yàlla tey moom itam ci këram la ñu yendu muy aw maas ah, la grande coiffeuse moom itam. nga xamante ne bi wax dëgg yàlla nit ku baax la moom itam dalal nañu bi ñu yendoo fii ñi nga xamante ne bi mooy kër Khady Ndiéne di leen jëf dëgg jëje incha allah beneen jotaay.